war a waxtaane aussi nu ñuy dem def ba gën a ñoŋal programme bi naka la ñuy def ba au-delà programme bi naka la ñuy def ba sunu système de protection sociale ñu gën ko renforcer tey dañ leen woo presse bi waxtaan ak si yéen yëgal leen mbir moomu ñu jëm waxtaan ak yéen si programme bi ba ngeen gën ko comprendre yokk si li ngeen ko comprendre tegal leen aussi ay film yoo xam ni borom ñi nga xam ne ñoo nekk ci programme ñoom ñoo leen di wax fan la leen programme bi jëlee ak fu programme fan la programme bi eggal tey fukki at yu programme national de bourse de sécurité familiale am leneen li tamit dafa am solo ñu xam ni que programme bourse bi état bi moom moo ko jëlal moo ko moo ko moo ko teg ci ndoddam loolu loo mu nekk loo xam ni lu lu jafe loo xam ni dañu koy dañu ko nawee parce que ci euh, dëkk yi ñu wër yépp gisuñu benn dëkk boo xam ne jël na lu mot euh, ñett téeméeri junni ay jël ak lu topp ñetti weer yu ne mu leen di jox vingt cinq mille wala trente cinq mille donc loolu la dañ dañu ko nawee